mom yaa ko mom 100 lolou mako assurer ay financement nak duma ma ne dugaloo ko fi dugal nga fi ay financement dugalat fi ay financement man duma and ak yow nan financement amul aha kay dolel nga ma ba ma dolel len laaj len ñu ngi ni taxaw xawma ñaata financement la dugal fi dox len ko table bu nek def nga ci dara yaama jox ne ma jox len yaa ma jox ne ma jox leen yaa ma dooleel ne ma dooleel leen table bu nekk def nañ fi dara bu dee vingt cinq mille wala dix wala quinze mille kenn ku ne table bu ne am nga ko fii sa marché la. fii ñun Abdou Karim def na fi lu wér ndax Khady Ndiaye su amee doole man ñoo mën a jàppale jigéen ñi moom moo ko jàppale te mbooleem jigéen ju taxaw fii ci marché bi rek moom financé na la ndax leer na ma ba ma demee si moom ma waxtaan moom mu ne ma loo bëgg ma defar la ko dama ko sama jigéen ñi ma amna lo defante ak ñom baye ba lolu paré nga defaat do mer nak waye dañoo ñaan yalla nga doon mer incha allah kon nak dañu am suñu yaakar am ci yoy yaakar di ko dis bëgg nga jàppale ñu ci ba xalé yi ñii ci kër yi buntu kër yi jamm rek lañ togg jaay neñu ñu dañoo bëgg am fuñu jaay lo man rek na nga ci japp do man na nga ci japp dañu jaaroon rek pour nuy la nuy wa marché bi xamal leen ni li nga xamne mom lañ deggmal mooy le 30 dañuy dem élection législative ñu war voter Benno Bokk Yaakaar massivement loolu waxtaan nañ ci du benn du ñaar du ñett tey nag comme dañu def visite de proximité jaadu na ñu fekk leen ci seeni bërëbu liggéeykaay ñu saafonteeg yéen ñu nuy leen euh, wax leen ni li nga xam ne moom la ñu ak barke démb mooy jouru élection bi 30 na ñëpp teel a génn voté bulletin Benno Bokk Yaakaar bi mu ngi nii bulletin Benno Bokk Yaakaar bi fii nag ma ne ñëwuñu pour campagne dañ fi ñëw pour nuyoo déggeen nga jottalil ñu suñu nuyoo table yëpp fi nekk ci biir marché bi Adja Khary Ndiaye merci waa marché bi ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo lay nuyu di leen gërëm di leen dalal yow Abdou Karim Sall boo tëddee boy boo nga nelaw yaa képp koo àndal ndax ñun président bi lañ bëgg ci boppam moo tax yow mi ngi teg ñu bëgg la. politique bàyyi woon nañ ko mais ginnaaw bu yàlla wee yaa tax ñu dugg ci te nag dañ laa xool rek xam na yow mii ko ànd ak yow du ko rëcc. ñu ngi lay sant di la gërëm yow Abdou Karim loo bëgg yàlla nañ ci yow Abdou Karim Sall loo bëgg loo bëgg yal na la ko yàlla defal yow Abdou Karim Sall yal na Macky toog ba doy jox la suñu mbooloo mi nag mi ngi nii ñii ñooy talaata ji talaatay ndeer a ngi nii foo wootee ñu wuy si la. ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax. bu ñu seetee fi ñu tàmbali ak fi ñu toll tey sant yàlla ñu war lo gis sabab waruñu ko faté waxna ko sànq maire Asta Niang lii tax ñu dugg fii deuxième sabab bi moy soxna Bambi Dieng ñu ñaanal ko yalla yalla yëkëti ko moo ñu dalaloon ci tool yi ñu xamee ak moom parce que xamante woon nañu ak moom ñu dem ci tool yi fekk ko foofu jour bi ñu ko fekkee yaakaar naa ne kii euh, Mbeng euh, faatu faatu Mbeng moo jëloon na fa kàddu bi mu jëlee kàddu laa ne njawar kii fexeel bu mu ñu bañ a rëcc fexeel ba jël ko parce que jàpp naa ni. war nañu mun a jàppale ci politique bi ñuy def booba léegi teggiwul tànkam faatu merci beaucoup na ngeen na ngeen yokk yokk taxawaay yokk góor góorlu incha allah seen mbootaay bi ñëwoon na bu soobee yàlla dinaa ñëwaat li des mooy le 30 Quand du len jangal li ngeen wara def mais nañ ko def avec la manière centre de vote bi ngeen di voter pour la plupart 17 bureaux de vote le légui 34 bureaux de vote 34 bureaux si vous jélé bureau bu gëna a amna 500 électeurs motax si ku bëgg voter da ngay teel a jóg teel dem teel a wote teel a ñëw togg añ merci à tout le monde euh, maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant gis nan sa taxawaay waaw sa liggéey rafet na kër baay waaw góore waay kon góore sa taxa waay waaw sa liggéey rafet na waaw góore waay Abdubillaay ku baax nga ànd ak moom baax ku bon nga ba gote baax waaw góore